ginnaaw bi ñu dalalee mu ngi xamal naka la def bu former association bi. asalaamaaleykum maman di lu nuyu eh, di la ziar tey nag eh, ki ñu wax Ndiémé Lam la ñoo seet fii Kër Massar ngir am ak moom waxtaan bu mu caay pour mu xamal ñu naka lay def ba li nga xamante ne mooy association bi nan la débuté ak nan la def ba yegg si fii Ndiémé di lu nuyu. Euh, Ndeye Fatou fay naa la. Je suis nuyu Sénégal yëpp man je me présente man mangi ngi tudd Ndiémé De Paris à Kër Massar euh, as yor association bu ñu tuddee insertion handicap au niveau de Paris. association bi naka nga def ba créer ko. créé bi au début euh, c'était en 2009 la ñu créé l'association. association tout ko association pour la réinsertion des personnes handicapées du Sénégal. Mhm. voilà je suis sama beneen càmmiñ boo il est en situation de handicap comme moi, Babacar Mbaye De Médina bu Médina la créé une association mhm. voilà après par la suite si laa à Paris euh, waxtaan ak euh, samay fi may liggéeyee muy Nous mhm. avons ñoom ñu bëgg a association ñu il faut association basée aussi au niveau de France mo def récépissé bi légui nak bi défé ñu daal def ay modification tout ko association insertion handicap puisque on avait censé pour aider pas que le Sénégal ak d'autres partenaires yi nga xamné tamit ñom ñoo nekk ci yenen dëkk yi en Afrique légui nak bu ko défé ñu daal di ko association insertion handicap tout boucler dal pour mu wër lépp voilà niñ koy faral di waxee dañ naan tout début est difficile. Mhm. bi ngay commencé ak naka nga mit ndax mitti woon na pour nga mën a am démarché nécessaire pour mën a taxawal lii bi association bi. waaw mën naa ne metti woon na mettiwul. Mhm. parce que comme que maa ngi woon Paris. te sama ki ma doon liggéeyal daf ma jàppale ci lu bari. ndax boobu quartier d'énergie lañ ko njëkkoon tuddee. nga xam ne dañu naan da ngay benn association yëpp daal fekk boobu waxoon naa ko naka am nañu association boo xam ne Sénégal la nekk. Mhm. léegi moom mu ne ma dina ma jox stand. donc ci lañ commencé collecte yi depuis boobu. Mhm. muy en 2009 la ñu commencé ay collecte. Mhm. ma daan ko indi Sénégal nag nii bu ma ko indee may ñu ma xam walla ma yónnee ko léegi ñoom ñu distribuer comme euh, nuñ ko war a distribuer.

bu njëkk bi ngay door a commencé naka nga doon def ba am don yi nga xamante ne yaa ngi ko doon séddale. waa don yi mooy comme ni ma expliqué rek mooy dañu dañu damay jël weekend bi ñu réserver ma place ci magasin bi léegi bu ñu ma réserver place man ma ñëw ak samay bénévole léegi bu ma ñëwee defar ay flyers yoo xam ne moom laay distribuer bu ma distribuer flyers benn client buy ñëw may ñu kaye ñii may ñu ay stylo ñii may ñu ay pâte voilà. ah lépp maanaam ci biir magasin bi nga doon liggéeyee. fa la tàmbalee voilà fa la tàmbalee collecte bi fa la tàmbalee. ñu gis ne gis nañ ay activités yoo xamante ne yaa ngi koy organiser noonu naka ngay def ba organiser leen bañ na nga xamante ne ñëpp dañuy sentir seen bopp ci biir. voilà organisation bi moom lenn rek laa ko gisee parce que dama ne comme que man sans bopp man je suis en situation d'handicap j'ai la polio depuis que j'avais 11 mois donc par la suite ci laa dem euh, France am ay soins yo xamné dina def ay séances de kiné ak ay séances de balnéo pour gëna a musculer renforcer samay musculation dal léegi nag par la suite euh, ci lay euh, ci lay ci la organiser association bi am ay bénévoles yo xamné ñom dañ né dañuy jappalé parce que bo ñëwé indi ay dons jox leen ay photo war leen né li ngeen ma jox fi la ko def léegi ñëpp sawar ci pour jàppale ñu léegi nag ñu bëgg nag affaire bi di gën a yaatu ñuy xool aussi waa Sénégal ak waa yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy jàppale ñoom lan la ñu soxla. Mhm. léegi ñoom buñ ñu ko waxee léegi man tamit bu ma ñibbee heure bu ma ñëwee bay joxe don yi ba pare bay ñibbi ci lay yóbbaale ay photo ay vidéo wan leen ne leen li ngeen ma jox mi ngi nii. Mhm. parce que ñun aussi ñu gën a objectif bu ñu gënoon a am mooy pour jàppale xale handicapé yi pour ñu mën a jàngi. Mhm. parce que si di gisee les enfants pour nous mën c'est parce que ce qui est plus difficile c'est les parents d'enfants handicapés parce que les parents qui handicapé pour mu dem wuti kaye wala mu dem wuti lu jox ay njabootam ñu difficile léegi objectif premier bi ñu créer association c'était l'association euh, pour aider les parents handicapés et les enfants qui sont handicapés mhm. mais je privilégie beaucoup plus

qui sont là-bas euh, au centre Talibou Dabo. voilà ma dégg nga wax ne bi ngay am 11 ans la nga handicap bi. 11 mois 11 mois. Mhm. naka la demee woon est-ce que am nga ci benn loo xamante jot nañ la ko expliquer. Euh, c'est un sujet un peu tabou duñ la wax dara parents yi. Mhm. parce que je vois que c'était tellement compliqué que am na parents yoo xam ne dañuy jël seen doomu handicapé yi di leen nëbb xam nga. Mhm. pour ñoom euh, pour ñoom handicap. Mhm. mooy nekk le tabou de la famille. wala mu nekk loo xam ne dañ naan voilà am na ñoo xam sax dañ naan boo doon def lu bon léegi day wàcc ci say doom. man je suis contre ça parce que je lutte aussi pour que xale yi nga xam ne dañu judd ñu leen di vacciner. Mhm. vaccin contre la polio c'est tellement important que. boo ko vacciner xale bi du am polio voilà nous ko protéger daal si lu parce que d'après ce que je t'ai expliqué je n'étais pas vaccinée puisque la maman elle était jeune donc elle ne savait pas c'était une illettrée aussi la grand-mère qui ma mon moo aussi donc il y a un sedd de kawam. voilà nous savons que le polio ça existait. Donc, mm, moo man li may lutter contre la polio pour que nous puissions yi vaccinés vacciner. Mm-hmm. te ñu bàyyi yi boo est handicapé c'est pas du du lo xamné day walé du lo xamné c'est le c'est le c'est le bouc émissaire de la famille voilà nous, euh, ay handicapé ngeen di jàppale ndax seen handicapé yi ngeen di jàppale dafa am catégorie bo xamné ñom ñoom ngeen di jàppale waaw wala non tout sorte d'handicap que ce soit les albinos que ce soit les handicapés physiques mhm. que ce soit ñi nga xamné ne ay silmaxa lañu duñu gis ak les accidentés aussi de la vie parce que amna euh, ñoo xam ne aussi dañu yoroon seen tànk di dox ñu dem ba ci suite am accident. Mhm. boobu moom moo gën a métti parce que nous on a grandi avec ça te ñoom daf leen daf leen dab. parce que même au niveau de Paris a organisé ay journées de sensibilisation sur le handicap ak les accidents de la de la vie aussi. Mhm. ak di sensibiliser jeunes yi ci moto yeeg yooyu pour ñu xool ñu def attention daal. Mhm. parce que même ngay wàcce escalier boo deful ndànk. mën nga daanu damm sa tànk damm et si bu fekkente ne am loo amuloo soin yi si war mhm. mën nga sa tànk yàqu mhm. te xam nga loolu boo toogee bougé woo donc mën na la indil yeneen problème daal ça mën na dem ba ci nga nekk handicapé aussi ma dégg la sànq bi wax nga ne da ngeen di jéem a délocaliser li nga xamante ne mooy siège bi indi ko fii nii mhm. procédure bi nan la naka la demee euh, pour ma dee pour ma indi siège bi fii pour mu gën a yomb mooy comme que man nekkuma fi man mangi ngi à Paris action yu bari yu may mené fofu la koy mené diko indi fi mhm. légui nak comme ça bu fekkante mi ngi fii ça mhm. existe ça parce que am nañu siège au niveau de la Médina moy bima len di wax né Babacar mbay mom moko yor mais comme comme Médina la Té on est nous à cœur Massar man fi la am cœur voilà ak maire beeg yépp té euh, remise de dons bi ñu def ni bu ñu mujjee def ni dama ko tuddé premier saison premier édition mhm. et lutax tax ma tuddee ko première édition moy dama daan indi di joxe fu na ma dem fa danaa dem Louga dem Thiès euh, yónnee daal si euh, département waa sous région yu bëri léegi nag ma ne pourquoi pas ma tuddee que première édition bi léegi première édition bi ça veut dire que Kër Massar comme que ñun base bi fii la nekk et te gis naa ne bi ma ñëwee di def don yi am na des personnes handicapées yoo xam ne ñoom ñi ngi jóge ba Lac Rose gannaaw Lac Rose ma expliqué ak ñàgg ak tout ils ont fait une délégation ñom ñu ñeu jël ci sen don légui nak ci la xalat né légui man bu fekkentane am nañu fi siège day gëna yomb ci ñun. Mhm. ci liggéey bi comme ça ñom tamit dinañu comme que amna ci ño xamné expliquer nañ ma né nañ dañuy ñaw ñii ne ma dañuy béy ñom dañuy béy ay salade ay euh, concombre ak yoy yu ci bari pour mhm. dundal sen jabot mhm. donc motax tax ma comme que Kër Massar dafa yaatu. légui Kër Massar légui bu défé fi siège ñom ñoom ñëpp kenn ku ci ne am sa euh, association.

mais pour ma li may béy pour ma jaay ko. Mhm. day compliqué ndax transport c'est pas accessible mënuma ci yéeg. te boo ci yéegee tamit doo mën a gàddu say bagages na danga koy yóbbu pour dem jaayi ko. Mhm. donc c'est un peu daal loolu moo tax daal man daal comprendre naa leen. Euh, seen contribution mooy lenn su ma ñëwee fekk leen ñu dajaloo ndeysaan bu ñu dajaloo waxtaan forêt donc euh, ñu jox leen liñ leen di jox mais am na ñu ma ci expliquer ñoo xam ne ñoom commencé nañ di cotiser. donc dañuy cotiser chaque mois 500 500 donc puisque difficulté bi day day du yomb dal mhm. légui ñom buñu dajalo dal di cotiser c'est 200 200 tous les mois légui tous les 6 mois ñom dañuy xol nu ñuy pour jox kenn pour mu financer ben projet. Mhm. légui lool la leen wax c'est une très bonne idée parce que bi ñëw tamit ñom ñoo passal sen bop ñom ñoo passal sen bop ñom ñoo ñëwal sen bop té yoy yépp mhm. ci sen benn fond la bo xamné ñom mom lañu la liggéey ba denc ko c'est pas mal non plus. Euh, dégg naa sànq da nga wax ne xale yi am nañ ñoo xamante ne dañoo manqué côté ben éducation ba xam dafa xaw a des ndax da nga dem si fi leen fi nekk ba gis ne seen éducation dafa xaw a des. Euh, là yàgg temps yi ma doon dem donc am na yoo xam ne dem naa mais euh, comme euh, je peux donner un exemple. Les centre Talibou Dabo am na benn xale boo xam ne dañ ko en charge donc depuis 2000 euh, bi en 2017 parce que je suis venue avec des étudiantes yo xam dañu àndoon ak man pour ñeu pour parrainer des enfants handicapés Les bi ñu ma yóbbu leen centre Talibou Dabo ak euh, quelques Guédiawaye yóbbu naa len Guédiawaye yóbbu naa leen euh, Parcelles Assainies ñu visiter. léegi dafa am ben xalé bo xamné lui il est atteint de trisomie 21 les ñoom bi ñu ko fayalee école bi on a payé pour toute l'année mais par la suite ses parents ñoom dañ naan dañu toxu léegi bi ñu toxu xale bi mënatul dem centre Talibou mm. Daba parce que ñoom ñu ngi dëkk Mbaaw. Mm-hmm. léegi nag xale bi il a 13 ans parce que nous quand on l'avait parrainé boobu mi ngi amoon ay je pense de il avait 8 ans ou 10 ans léegi nag ñu fayal ko pour mu pour toute l'année mais par la suite papa dit jàngeetul et depuis at boobu ba mu am 13 euh, ans mom ñëwoon na sax ci remise de don bi. Mhm. ba légui jangewul mi ngi ci kër gi tok mhm. donc euh, parce que lolu day tax xale bi retard mental am day gëna grave. voilà parce que xalé trisomie il faut ñukay travailler di wax ak mom diko diko diko diko di wan aussi di ko liirloo di ko stimuler ses muscles dal mhm. parce que bu dul loolu xale bu togué rek nek ci TikTok bi wala mu nek ci téléphone bi. Mhm. parce que d'après son papa ce qu'il m'a expliqué lui il est tout le temps sur le téléphone. mais quand on ñëwé amul téléphone amul dara té ma ngi wax ak mom mi ngi tontu. Mhm. dima tontu par des gestes. donc xalé bobu mo leer na ma man bés buñ ko jappalé donc dina mëna dem dal et tout ce qui est trisomie 21 aussi il faut que les parents bàyyi di leen bàyyi si kër bi nañ leen di bàyyi daal ñuy di mélanger avec les autres ñu bañ daal euh, handicapé yi ñu di leen boole ñoom kese c'est pas bien. association bi est-ce que état Sénégal nous ngi siy contribuer euh, état Sénégal euh, non contribuer guñu nous si contribuer daal parce que ñun ak propres propre moyen ak dons yi may jox foofu ñun loolu lañu

ba am na remise de dons boo xam ne au niveau de la Médina il était venu donc est na participer si ñëw ak euh, chauffeur am. Mhm. ñëw na ba moom ci boppam sax def na remise de dons donc il y avait des promesses. Mhm. yu ñu def mais par la suite bi ñu ñëwee ñu woo ko mais le dal. mais malgré ça nous on a continué on a continué avec euh, nos propres moyens comme d'habitude je suis mhm. tournoi de foot je suis comme solidarité parce que je suis à Paris il y a beaucoup de jeunes qui ont venus me Médina euh, rejoindre euh, sur Paris et banlieue par la suite un jeune qui s'appelle euh, Gorgui Ismail Sakho mhm. euh, ma il a beaucoup fait pour l'association mhm. Il m'a proposé mais pourquoi pas comme que je n'y ai pas, fi du organiser tournoi de foot pour collecter des fonds mhm. donc bi organisé organiser collecte de fonds bi tournoi de foot avec euh, mu am tombola aussi et on fait un petit pique-nique yoo xam participé nit ñi dañuy participer jeu bi ñu fait ay coupe ma defar mu commander ay coupe premier, deuxième, troisième. Comme ça, si tu gagnes, nous donnons la coupe. Mm -hmm. Nous participer au-delà de 10 euros par personne. Mm -hmm. 10 euros, nous avons gagné. C'est la scène sandwich du Boko, c'est la scène euh, pour tournoi aussi, c'est la Boko. Mais nous avons plus. Donc avons gagné plus. Nous avons permettre que nous avons des fonds pour nous gagner. Mm -hmm. Mais nous avons gagné plus. Je suis venu à chaque fois que je viens donc je profite de mes vacances en même temps faire action actions daal comme que fum nek ni nii lu am la te il faut que ñu wax ci aussi moy suñu président bu bess bi euh, euh Diomaye mm-hmm. donc dañ koy ñaanal mu dal ak jàmm ak salaam mm-hmm. mu tok ak jàmm ak salaam ñu accompagner ko parce que ñun les Sénégalais ñun amuñu lu dul suñu dëkk mm-hmm. donc bu ci jàmm amé rek parce que fum nek ni on avait peur même man bala may ñëw j'avais peur que dëkk bi day tàkk mais gis nañ nu mu demee bi may wàcc aéroport jàmm ak salaam ñëpp di foo ñëpp di ree donc ñu koy ñaanal te di ko ñaax aussi na bàyyi na na na na gestu handicapé yi na gestu handicapé yi handicapé yi sonn nañu donc moi je l'ai vécu man dund naa ko nekkoon naa fii te am naa léegi cinquante ans ça veut dire que 55 ans yi ma yi ma yi ma dund Sénégal uh-huh. je peux dire que 20 ans yi ma nekk France ci lay soog xam lan handicapé mm-hmm. donc nañ leen gestu gannaaw nañ leen jàppale nañu jàppale doomu handicapé yi nañu handicapé yi nañu handicapé parce que ba pare am ci ñoo xam ne bopp ay ay idées yu rafet yor mm-hmm. ci ne on veut lutter contre la mendicité ku mën a parce que nous on est manuel mm-hmm. moi tout ce que je fais c'est manuel tout ce qu'ils font c'est des manuels nañ leen jàppale ci lu ñu mën jàppale accessibilité bi parce que sans accessibilité kenn du mën a dem. Mm-hmm. voilà nañ ci jàpp. Euh, dama dégg léegi nga wax ne da ngeen lutter contre la mendicité lan ngay wax ñi nga xamante ne ay handicap lañ waaye ñoom defuñu lu dul tàll seen loxo. bon d'une part je peux pas les condamner parce que je les comprends mooy comme li ma wax rek parce que tamit boo amee ay njaboot. Mm-hmm. il faut nga dundal leen. parce que par la suite si lay ñëw parce que am na benn handicapé boo xam ne sama benn tata maa ngi koy nuyu moom xam na ma léegi mom dafa ñew ne ma njéeme am benn femme handicapée bo xamné il faut nga wutal ma fa urgent urgent mhm. ñu may may ko ko parce que dama ko gis day ram dama ko yërëm ma dem wuti fauteuil woo ko fay conteneur bi pour mu ñew mais tata bi bu mu ñew di ko ko jox daf na ko yaay mënuma jël fauteuil bi parce que dama wara jël ay bus di dem ba Dakar di yelwaan donc euh, fauteuil bi duma arranger kon bayil noonu xam nga lolu depuis boobu ça m'a ça m'a marqué comprendre naa leen. Mhm. parce que il faut nga dundal sa njaboot. Mhm. il faut yow ci sa bopp nga dund moo tax nañu ñaan yàlla handicapé yi affaire santé bi aussi nañ leen nañ nañ ci taxaw ñu leen di faj moyens c'est vrai moyens yi bokkul mënuñu ko comparer. mais man xam naa santé c'est important pour une personne handicapée xam naa aussi ñu jox leen lu ñu aussi c'est important aussi pour une personnes en situation d'handicap, donc mangi ngi ñaan daal nguur gu bees gi daal wax dëgg yàlla nañ ci taxaw bu baax a baax a baax ñu jox leen loxo daal. benn dernière question. aide mhm. yi nourriture rek lay doon wala loo xamante ne day nekk loo xamante ne seen besoin la dina leen permettre ñu mën a déplacer non aide de nourriture aide il y a aussi des fournitures scolaires il y a aussi des produits d'hygiène pour les enfants yoo xam ne dama koy jox pouponnières yi aussi. Euh, même bu ñu duggee ci site bi dinañ gis ne am na ay pouponnières aussi yu ñuy jàppale. ak aussi am na ay aides financières yoo xam ne ay partenaires ñoom ñoo ñu koy jox pour ñu ñëw di ko di di pour ñu mën ko spatcher daal pour xool naka la ñuy def pour dolli parce que même li ma indi nii dañu obligé tout ce qui est kit euh, euh, denrée alimentaire pour le Ramadan yooyu yëpp dañ ko jënd bokkul ci dons yi. Mhm. Mhm.

Donc c'est à cause de ça qu'on a pu acheter tous les paniers ramadan qu'on a distribués et le meilleur reste à venir comme nous le koy mais nous sommes dans les personnes en situation de handicap et de parents handicapés et les parents isolés aussi nous, sommes ci les on n'est pas seul parce qu'il y avait l'association « de de Fatou Fatoumata Zahra qui xam été mi ngi donc, euh, il y a l'association aussi qui est à la Grosse Niag des personnes handicapées. À Kermassar aussi, il y a deux associations qui étaient venues euh, pour récupérer les dons. Donc, il y a l'association aussi pour la réinsertion des personnes handicapées du Sénégal qui était là. Il y a aussi Tabanka, Tabanka International, euh, c'est une association aussi. lui aussi, il y a des personnes handicapées pour faire le sport. Lolo aussi c'est très très très important et lui il habite à Kër Massar léegi nee na dina en charge pour def le sport lu mu ci aussi dina leen accompagner surtout. Mhm. bon merci beaucoup à tous. merci beaucoup. maa ngi leen di gërëm di leen sant.